ahousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalallaahu wasallama ala xayri xalqihi wa xayri xadimihi wa fadilihi wa samihi wa malaamihi wa baabihi wa seyxi wa sallim asalaamaaleykum mbàkke sab géewe lay nuyoo kuréer aw turam nag Babacar moo di aw turam mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm ak xaalis ñu ñëwaat ci seen jataayu émission bi ñu tuddee firi gént di ko defee ci seen sit bu mag bii di 28 xam ngeen ni ñëwoon nañ ci jamono yee jàll am ci fu ñu yemoon am tam ay laaj yoo xam ne jotoon nañ koo leeral am ci yoo xam ne leer leeralaguñ ko ñu war cee ñëw tuuti rek incha allah waxoon nañ tam gént ni muy ñëwee ci nit ki ak lan moo koy waral ak dëgg-dëgg lan mooy gént ak ni mu ñëwee ci lislaam ak diine ban rapport la am ak moom ndax wax nañ leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu musaan julli suba ba noppi daana laaj ñenn ci saaba yi lu ñu gént bu fekkee gént nañ mu firi leen ko kon loolu diine la waxoon nañ leen suñu maam Ibrahim géntam ga ba waral moo tax ñuy tabaski kon loolu yëpp ci wàllu diine la ak yonent yàlla Yuusuf géntam ga yooyu yëpp waxoon nañ leen ko ci émission yi jàll xam naa dañ leen di leeral rek wax leen li nga xam nag mooy réalité Sénégal ak suñu Afrique centrale gi gëm-gëm yi nga xam ni moom la ame ak suñu aada muy lu mel ni wàllum rab ak àndandoog yu mel noonu nga xam ni ñu ci bari gént xam nga waxoon nañ leen ne leen dafay nekk message bu jóge ci suñu borom direct yi muy wax ak jàmm bi lu mel ne yonent yi am na ci loo xam ni ci suñu borom lay jógee message bi am na ci yoo xam ni itam rawxaan walla yu mel noonu mooy communiquer ak nit ki waaye mën naa gën a wàcc ba gën a wàcc wala jinne wala yu mel noonu ak bu ko defee nag yooyu mooy ëpp ci suñu côté yi ñoo xam ne dañuy nekk borom àndandoo mën naa nekk sax seen maam moo ko sampoon yàgg na waaye booba ñoom fekki ko te xamuñu ko muy waral nag ñuy gént am na ñoo xam ne buñ géntee rek luñ gént dañ koy gis nga xam ne duñ xam lu mu doon waaye am na ñoo xam ne itam buñ leen dee fexeel wala yu mel noonu dinañ gént lu mel ne ñu di leen dàq wala ñu gént di xeex wala yu mel noonu loolu ah, mbirum àndandoo wala rab moo koy def lu ci bari di signaler nit ki bu fekkee ne ñu ngi koy fexeel bu fekkee ne nag rab bi moom lay doon lu ci ëpp dina sonal nit ki ndax saa bu la wanee dara wala mu jàppale la ci benn côté dafay laaj lu mel ni sarax te bu génnewut sarax bi man na wëlbatiku di la sanctionné di la yàqal ba ñu ci bari bu ñu seetee dañuy wax rek ne rab la te fekk ne rab bi nekkul ni moo def yëf yi waaye day mel ni sàppoor rek xam nga bu ñu yuuxoo lakk am na boo yeexee ñëw sàppoor ngay fekk ñu taxaw boo xamul nag mën nga jàpp ni sàppoor ñoo def yëf yi waaye dañuy ñëw pour wàllu si bu ko defee nag loolu ñu bari dañuy gis rab bi rek defe ni rab bi moo yàq-yàq gi fekk moom dafa fay lakk gi ba noppi di laaj payooram mooy di laaj sarax parce que jinne lu ci bari essence lay def moo tax léegi kuy wax ne dama am ay jinne waaye danaan kay <laughs> ay jinne ma am ndax day jëflante jinne yi rek di leen defal jinne yi di ko def defloo bu amee lu mu bëgg wax leen ko ñu ko da ngay def nangam ñu defal la mu def loolu yi def la mu bëgg loolu nag bokkut ak am jinne am jinne mbokk yi nit yàlla moo koy def koo xam daa jaamu yàlla ba not jinne yi ñu jébbalu ci moom xam nañ ci lu mel ne suñu kilifa yu mag yi nga xam ne dañoo am taalibee jinne loolu mën na nekk mais nag ñii di wax ñu ci bari ni wax ne dañoo am jinne dañuy wax ni dañoo signé pacte ak jinne dañoo damaa ànd ak jinne la ñuy waaye damaa am jinne des ko wax ndax jinne yi ak nit ñi suñu borom daf leen a bind rek ngir ñu jaamu ko maa xalaxtul jinna wal insa illa liya'budun nga xam ni ñoo bokk taxawaay bu ko defee nag jinne yi dañoo investible ñoom dañuy dem te duñ leen gis mën nañ dugg ci néeg te duñ jaar ci bunt mën nañ dugg ci banque yi jël xaalis mën nañ def yu baree bari mën nañ dugg ci nit jaxase ko mën nañ dugg ci ba ci biir nit ci deretam luy dox ci deretam bu ko defee muy wax li ñuy wax damm muy baatu wolof wolof yi di ko wax baatu arab wolof yi di ko wax rek mooy damm mooy deret wolof yi di ko wax dëmm ngeen baal ma ci baat bi loolu mooy jinne ji mooy dugg ci nit ki di dox ci deretam bu ko defee nag bu xoolee dara mu yàqu bu waxee dara mu yàqu bu nee la ni nga rafete nga daal di am problème léegi bu la dóoree fekk jinne ji mooy dox ci physique am am jafe-jafe bu ko defee nag moom dina yëg nii moom am na lu ànd ak moom natareelul am na lu nekk ci moom waaye nekkul lum sabab mbokk yi yooyu yëpp day am bu ko defee loolu mën na gën a xóot xam naa danañ ci gën a ñëw bu baax a baax ndax coow li bari na ci ndax am na wala amut waaye lu am tur rek am na waaye nan la amee xam nga nit ku ñuy wax ni maanaa démb kër ñoom diw maanaa ginaar la ñu reere loolu ku ne dégg na ko waaye nag fu ñu reere nit wala nanga wala ñu fekk fu ñu koy toggee moom kenn gisagu ko waaye nag am na lu am lu metti loo xam ni kenn mënu ko expliquer te it mënees koo weddi loolu nag ginne yi ak yooyu ñoo koy def di dox ci nit ñi ko defee nag rek mën nañ la dugg bu defee nga nekk borom rab di daanu ci mbedd yi wala nga nekk koo xam ne dañuy teg ni wàllu yu la bu waxee mu am wala bu defee moom fekk jinne ji moo koy jaay rek mooy ànd ak moom parce que jinne yi dañuy xam li ñëwagut waaye lu mu weesu da koy fàtte jinne lu weesu mu fàtte ko waaye lu ñëw ñëwagut da koy xam doomu aadama nag lim weesu la xam waaye li ñëw ñëwagut xamu ci dara ci nit ñi ëpp nag laay wax bu may wax léegi nag loolu moo tax suñu borom dafa bind gaynde gaynde fim ne day gis day gis jinne te jinne du gis gaynde jinne day gis nit te nit du gis gaynde ba tey ci ñi ëpp laay wax bu ko defee nag gaynde moom jinne rek la bëgg di dunde te jinne du ko gis bu ko defee nag nit moom dafa ragal gaynde ragal jinne ba noppi jinne wala boog nit dafa not gaynde jinne noot nit léegi nag nit ñi am doole nag dañuy noot jinne yi loolu moo waral jinne yi di sàcc doomi nit yi di leen yor léeg-léeg ci niñ koy expliqué ni ko ñenn ñu di jàngalee ngir buñ gisee gaynde ci àll bi ñu mën a daw bu ko nit gis dina ko gis te ñoom duñ ko gis bu defee ñu mën a daw suñu borom moo xaral la jàll jalaaluhu ci ni muy bindee loolu mooy sababus maanaam diggante jinne ak rab nga xam ni maanaa doonul ñaar waaye jenn jëmm la waaye fonction rek mooy wute mooy rab mooy li nekk ci kër gi di jëflanteeg nit ñi di leen jaxase bu dee jigéen muy gént di sëy wala muy yéex am jëkkër wala bu amee kum bëgganteel bu ñu demee tuuti nga gis ñu am jafe-jafe wala mu xuloog moom wala nga gis muy xëpp deret yu mel noonu yëpp moo koy def bu dee góor itam dina koy def dina koy géntaloo di sëy dina ko téye ba du mën a am soxna mën na ko téye sax ba du nekkati góor dëggantaan yu ci bari dañ koy gis koo xam ne buñ ko joxee soxnaam benn ci moo góor gi wala jigéen gi ku ci am warab rek mën na koo def ñu wax ne dañ ko takk xala fekk rab moo ko def bu ko defee nag kon rab lu am la lu nekk la ci suñu wiir bu ko defee nag mënees na cee mucc am na ay jumtuwaay yu bari yu ci mën a mucc waaye nit ki balaa xam li ko li feebar bi na faju wala du faju dañ koy seet ba noppi nit ki nag bu xamul li ko daal du ko mën a faj am na ñoo xam rab moo leen daal ñuy faj leneen mais da gis daa réew rek wala dafa nangu wutu sëy fu mu dem jóge fa fekk ni am lu ànd ak moom rawaan àndal moo soxor di ko jaxase xolam di gaaw a tàng muy mer nga xam ni mën na bëgg nit waaye bu ko gisee bu ko soree dina ko bëgg xelam nekk ci waaye bu ko gisee rek du ko bëgg mu jige ko yooyu yëpp rab moo koy def day fiir du bëgg dara dox sa digganteeg moom am na ci koo xam ne sax nee na ma yegg na ci bu tëddeeg borom kër bi day am lu ñëw tëdd seen diggante moom da koy gis bu jëkkër ji séqee moom dara ci guddi loolu da koy duma duma yu yoo xam te jëkkër ji moom du ci yëg dara xam nga loolu te loolu man ki ma ko nettali moo ko dund nettali ma ko am na ñoo xam ne dañuy génn di sëy moom ñu bari dañ koy def donte nag am na ñoo xam ne coono la rek mais du rab mais lu ci ëpp rab moo koy def bari na ñoo xam ne dañuy xëpp deret di gis mbaax mu të arrêté ñu ci bari ci jigéen ñi loolu rab moo koy def bu dee itam yeex am jëkkër gi wala am na ñoo xam sax buñ dëgëree bopp am jëkkër mën nañ yeex am doom gis naa soxna soo xam ne nee na ma seen famille dañuy def ne ku ci am borom kër dañu la yóbbu ci fi ñuy tuuroo nga tuuru ñu sang la def lay yëf bi mu amee borom kër nag borom këram ne ko góomu yooyu daal di loolu diine nanguwu ko daal di wax ay dëggam waaye nee na am na at moo xam day xëpp deret ba bi ma koy wax matul daaw sëy na fukki at yoo xam mënut ta am doom nga xam ni rab yi ñooy xeex moom te comme ëpp gu leen doole bu defoon lañ bëgg rek ñu ñu bàyyi ko mu kii comme mun ko nag daa war a dem ci ku leen ëpp doole mu tàqale ko ñoom bu ko defee mu doog ko mën a am jàmm loolu daal mooy mbirum rab nga xam ni moom lu yaatoo yaatu la nekkul luñ mën a wax gis nañ ñuy say ci mbedd yi da ngay gis koo xam du la ëpp doole waaye bu ko rab yi jàppee bu fi tar ci rek nga daanu gis koo xam ne bu ko rab jàppee day wax loo di gis yoo xam ni doo ko gis di wax lu ñëwagut yooyu yëpp rab moo koy def bu ko defee nag rab dañuy xam ne dañoo dëkk ak moom comme ni ma koy expliquer di wax ni kër gi ngay wax ni yaa moom kër gi sax yaa ngi fi dëkk ak ay dëkkandoo yu bari yoo xam ni li nga fi am rek lañ fi am muy jabar ak i doom ma ci kaña kaña mi nga xam ni bu génnee bëccëg rek ñu dóor ko ay yet citoyen yàlla dafay am jabar ak doom unku um moom la fi am janax am ko fi sangaleñ am ko fi mbóot am ko fi te ñooñu bis seen nga gis ci koo sa gis ci yu ndaw yooyu di dox ci kër gi kon leneen mën na faa ne loo xamul te jinne yi ñoo ëpp nit ñi te nit ñu bari mosuñu leen a gis bari na ñu mosuñoo gis jinne loolu moo lay wan ne rek luñ ne la am na rek mën nga jàpp ne am na parce que suñ borom nekkul ni lee am lépp da koo tudd ci alxuraan alxuraan newu fi di détaillé loolu mu ne ndàngamaki ak nangam bari na yoo am te alxuraan tudd ko ndax da koy junj rek bu waxee mbindee fi rek wax doomu aadama du fi ne naan pël ak wolof ak joolaak nangam ak nangam waaye day wax du nit rek nit dugg ci biir bu buy wax jinne itam daan jinne rek mu dugg ci waaye nag yooyu yëpp mën nañoo dugg ci biir yooyu xam naa daal buñ ko toppee mën naa gën a gudd waaye lu ci leerul rek bu ngeen ko laajee ci commentaire yi ak yu mel noonu danañ ko ñëwaat gën koo leeral ba mu leer incha allah xam naa dañuy taxaw foofu pour mu gën bañ a gudd ba beneen yoon ñëwaat ci beneen jotaay wasalaamualeykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf